jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun lu ci nekk ñeenti yoon dana mel ni ku goreel junni jaam jox ndogu junni ñu woor woddu junni ñu rafle des na ko bindal itam tuyaaba ju tol ne limub njanaaw yi ci àdduna bi yépp te des na ko defal li ñuy defal jaami yàlla yi gën a baax mbokk yi ku ci bëgg yeneen leeral da ngay dellu ci xurratu ayni bu Serigne Souhaïbou Mbacké page 141 142 yaa xayra dayfin ataa bil bishri wal